démb aussi daf leen assommé waaw nekk na loo xamante ne aussi euh, ñu ci bari ci ñoom bëgguñu woon mu am waaye nag ki nga xam ne moom moo jiite réew mi nga xam ne ñun suñu suñu institution yi nañ ko tëggee maanaam fii boo fi amul ñu bari ñu ànd ak yow ci ñuy voté budget yi sa liggéey du yomb ndax assemblée coow lee fi ne rek mais affaire bi yëpp majorité bi la rek. waaw xam nga dem ci pupitre bi taxaw soob wax fëgg dënn kërëb kërëb baax na après ñu dagg vidéo yi tas ko ci internet bi mais le plus important mooy bu ñu demee boor a voté ñi ëpp ci député yi votel la loolu nag majorité moo koy joxe. waaw ñoom ñoo ko fa amee woon gunge seen président Macky Sall ba mu dem président bii ñëw gis nañ ñi dañoo nekk ci logique gu confronté wu di jël sax ses prérogatives et sax xam na ñoom dugal nañ fi projet de loi boo xam ne bu jàlloon président dootul mën a tas assemblée nationale. Hmm. waaw. dañ doon jéem a kar kii daal loolu yëpp def nañ ko fi donc muy ay c'est une somme d'erreurs en fait yu ñu cumuler ñoom ñëpp def ko ba nga xamante ne nag président toll na ci situation boo xam ne il est obligé mu tas assemblée ñu dem ci ay ñu xool kon mooy amaat majorité ñu fa nekkoon nag xam nga ne loolu du leen neex waaw duñ naan ku ku sa wujju di sëlëm moom doo set kon waa Bennoo bu ñu. génnee Abdou Mbow liir naa mu bind comme moom moo leen jiite waaw moom lañ ciy tudd effectivement ña ngi koy naqarlu naan moo convoqué woon le 13 ak waaye loolu moom damaa jàpp ne wees na daal man daal man daal fi mu toll nii pour man li am solo xam nga lan la yan tactique ak yan schéma politique la ñuy teg jëm le 17. waaw loolu daal pour pour man mu ëpp njariñ waaye président yaa convoqué woon le 13 moom la 13 ak le 12 ak la 11 a ci yem il faut oublier ça c'est jeex na parce que man maa la woon dinaa la louer kër gi le treize le douze kër ga daanu na waaw aw ma pexe yow it nag dama wuti feneen foo dëkk. bailleur bi génne na am amee ah, wax dëgg yàlla. dëkkiwaat feneen moom bëgg bëgg forcer rek ne non yaa waxoon le treize le treize le treize amatut. newoon naa leen député bu ci am ay muraada demal doxi ko le treize. <laughs> déclaration de police du am. ku ci am beneen liggéey. ku ci beneen liggéey tàmbali fa gaaw <laughs> ah léegi nag. Benno xam nga lu ko deseem. xaaral ma ñu commencé sama interview yi sax. ah ku ci amoon métier de. comme que métier hmm? comme comme comme comme comme maire bi moom mën ngaa nekk. tailleur mécanicien journaliste directeur ministre nekk maire. mais et puis député bi lañ doon tere loolu. moom kay fi mu ne nii lëndeg jàmm. mu commencé ñëw wuti. non fi mu nekk nii kay damay ñëw di commencé di wut ay interview pins ay interview yu baax. internet yi képp koo xam ne bëgg ngay interview wala nga namm sama face à face. émission seen jotaay maa ngi nii soose. non yow loolu mënoo seetla dañ lay reconduire yow député ngay doonaat. Ah. non bàyyil ma dellu. Ah, ah, demal yow soose demal demal. télé bi bàyyi ñu kii rek dafa xaw a dafa xaw a rek moo tax mais mais aayewuñ la nga nekk député ba pare di exercer ce métier ah ça c'est pas interdit. mais presse nag dafa dafa dafa nekk métier bu sensible moo tax tey Ahmed mi bu nekkoon député fi mu toll nii di invité gars yi ci télé yi maanaam nit ñi duñ gis ne kii. métier journaliste am lay def. mais dañ koy méngaleeg mu tànk député am am mais am na fi ay député tailleur député nangam bu bu session amul dañuy dem liggéey ah waaye yow nekk député rek tax yow la nga la sa métier lépp nga teg suuf ah waa mbir mi jeex na démb nag fi mu toll nii fëggaat leen costume yi te yëlebaat marinière yi defaraat musóor yi te dem liggéey ci ñi ko am. waa ñi ko amul nag nan nan xool leneen fi mu toll nii euh, benn bokk yaakaar pour tontu sa laaj bi xamul leen dese ñoom seeni cartouche jeex na fi mu toll nii très sincèrement parce que ñett yi lañ yoroon assemblée nationale lañ yoroon au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental ñett yépp bennoo ko yore woon fi mu toll nii ñett yépp benn bi moom dem na ñaar yi ci des nag moom président dàq nañu leen jiite bloqué na exécution budget ba mel na ne amatuñu ñoom léegi nag dissolution officielle bi nag faaw ñu dem nag ba ci prochaine législature bi pour ñu mën ko acter à l'Assemblée nationale kon ñoom dara desetu leen fi mu toll nii lu dul comme mbër muñ daan rek xam mbër boo demee bu ñu la daanee ndeysaan gars yi dañu lay encourager waaw demal defarawaat defaraatal sa ngemb nañ dem defaraat seen ngemb ñoom waa Bennoo te xam ni dañuy jëm ci ay jongante. yan chemin ak yan tactique politique la ñuy teg nag ba am majorité assemblée nationale bii moom gisuma ko man mënuñoo muusa ka waane nañ ma baal ci kàddu gi ba amaat majorité le 17 mënta ne parce que dafa am loo xam ne suite logique la sénégalais yi mënuñu tànn nit jox ko 54 de poussière ci ay kàddu ne ko yow yaa ñu doy mais sénégalais yooyu mënuñu changer waat avis en l' espace de cinq ou 6 mois 6 mois mënta nekk. waaye nag faut pas dormir aussi sur ni ko gars yi di waxee bu doon doone yàcc na yaafus rek ne man amoon naa 54 juróom-benn weer gars yi mënuñ fi changer avis non politique ay schéma tactique la gars yi fi mu toll nii dinañu jàkkaarloog ay schéma de mu neex leen mu naqare leen gis nga sëñ bi ba mu ngi commencé xam nga daan noppi woon waaye ba mu xamee ne fi mu toll nii dañuy jëm ci ay élection ca la woo ay ñooñam fee ca euh, euh, hôtel booba lancé fa xaw ma leen responsabilité fan yële passé bloc république bloc démocratique ak ak républicain gis nañ ko fi les les anciens libéraux ak waa kër Macky Sall yi ñu dajaloo ba ñuy lancé livre vert bi livre livre blanc wu Sall ba mais le PDS était représenté te PDS ku ne xam na ne ci jo ci joomaay président la bokkoon kon du ne rek affaire bi day yomb de nan def focus ci le 17 liggéeyaat ko te liggéey bi weesuwul dem waxtaan ak nit ñi waxtaan ak base bi remobiliser les troupes. pour ñu xam il faut ñu xam sénégal yi xam solo bi assemblée nationale am pour accompagner un président de la république parce que tey boo falee président ba pare joxoo ko majorité assemblée nationale mais amul njariñ parce que assemblée léppam vote la lépp boo demee commission yi plénière lay mujjee plénière moom vote fa am vote da ngay yëkkati loxo wala nga bës bouton ñu vote calculer kon majorité dafa am solo ci ku bëgg a accompagner président de la république pour mu liggéey loolu nag dama jàpp ni champ politique bi. fi mu toll nii ñii sénégalais yi gën a jox bopp wax dëgg yàlla ñooy gouverner présentement moo tax ku jëgi dinañu xataraayu ñu wax dina ñu xeex mais du ma ne duñu am député nag danañ ko am waaye dañ dut am majorité bi moom logique pour logique man gisuma schéma politique bu ñuy teg ñoom l'opposition am na ku leen di woon nag ci résistance fan yi waaye dañ résister wu mais puis et loolu day neexal jeu démocratique bi sax réew aussi day am opposition nañu résister wu ni ñu ko sentir waaye fekk ñi ngi ñi ngi ci kanamu micro yeeg salon yi daal taal clim yi naan il faut résister résistance du ma sa am résistance nag terrain la moom da ngay wàcc terrain bi naan ci lacrymogène yi dóor dàqe romb car rapide yi ñàkk tooy xépp résister kon bennoo lépp lu luñ mënti wax wax naa la big fii dégg naa ci ay kàddu yu doy waar yoo xam ne man dama koy comprendre xëy na ñi wax xol bu jeex la waxee parce que xëy na bugguñu woon dem coolee fi ne rek mais bugguñu woon dem mais comme demu force la du neex dem par force moom du neex. xam nga li xam nga ki gana si Abdou Fall chaque jour nga trayal ko ay ginaar kooku sëñ bi boo ne ko tey ngay ñibbi mu leer ko ne bu ñibbee moom xoolal ci mbaxal mu tooy ma la koy jàpp ah <laughs> sëñ bi. bu la ko waxee bu la ko waxut it bëggut a dem <laughs> dégg nga c'est la même chose assemblée nationale bi ñu ci bari ci ñoom wallahi azim bëgguñu woon dem parce que xam nañ privilège yi lañ nekk député jox ak lañ cey jëlee ci koom mais loolu bëgguñu woon mu jeex waaye nag jaa fekk ñoom ñoo def ay choix politique yoo xam ne baaxul sénégalais yi wan leen ginnaaw am ñu ñu faral fal leen dès le premier tour à la présidentielle te gëm naa ne bu ñu demee le 17 li dinañ am ci lim boo xamante ne. gëm naa ne force politique du ko mës a am ci réew mii ci ay député waaw loolu moom mën dama ko gis mais tekkiwul na nag aussi ñoom it dañuy nelaw rek naan affaire bi dina yobb il faut ñu delluwaat à la base waxtaan ak nit ñi gën leen sensibiliser ci ja ci ci solo bi am majorité assemblée nationale am pour ñi ko xam baax na pour ñi ko xamul ñu gën a farlu ba gën a accompagner président pour mu mën a doxal projet bi comme ni mu ko sentiree. parce que réew lépp ay loi ki règlement nangama ki nangam loi yi nag dafa am fu ñu koy tënkee duñ ko tënkee palais de la république palais kenn du fa tëgg ay loi assemblée lañ koy tëggee fa lañ koy voté fa lañ koy jëmale kon boo fa amul lim bu bari te ña fa ne bu ànd ak yow liggéey bi day jafe ci yow léegi nag à partir de maintenant dinañ xaar jëm le 17 di nga gis nag schéma politique yi gën a décidé wu nag ay ñoom Idi yi ñii ne pat ñoom Khalifa Sall Amadou Ba ba ci Ablaye Wade Karim Wade ñoom ñëpp. di nga gis ñu commencé nag fi mu toll nii di teg ay pexe da di wax ci kaw amaana ñu ngi doon wax ci suuf waaye dañoo toll ci jamono yoo xam ne nag fi mu toll nii taxawaay ak wax ca kaw la laaj loolu yëpp dana leer gëm naa ne aussi la mouvance présidentielle ñoom it danañ gën a yaatal seen coalition Diomaye président ak Pastef ne nañ Ousmane Sonko mi ngi ko doon théoriser fan yi lañu ñu génn am une coalition élargie bu yaatu boo xamante ne dafay gën a am doole ba bu ñu demee le 17. am une majorité boo xamante ne sëñ bi force politique du ko mës a am ci réew mi gëm naa ne mën na ne te gëw ma a Sénégalais yi dinañ leen ko bañal parce que mënuñu fee changer avis ci juróom benn weer il y six mois ci ginnaaw ñoom ñoo leen jox cinquante quatre pour cent des suffrages et gëm naa ne bii sax mën na ko ëpp parce que léegi nit ñi dañoo gën a yeewu ci mbir yi ni muy doxee maanaam seen réew da leen a gën a ñor léegi bu njëkkaan li tax gars yi daawuñu voté ak yooyu loolu la woon kon ñu ne waaye politiciens yi ñoom mais askan wi dañoo dem ba léegi dañoo yeewu ci yëf yi ba yow mi ci ne sax daanaka yow doo leen doo leen ëpp xam-xam ci lu bari. ci mbir loolu la nag. ñoom dañ lay suivre au jour le jour à la lettre. ëpp la xam-xam. ëpp la xam-xam ci yenn yi fopp donc askan wi bàyyee tut yëf yi ak politiciens yi rek da koo ñor ba fi mu toll nii léegi nag ah election moom loolu la aussi nañ dem rek ku ci am ndam ñu xam ne yaa am ndam mais daal euh, gëm naa ne force politique yi kenn ku ci nekk dina def li ci war a def. li majorité bi nag li ma la ci wax léegi rek fi ñu ci toll nii nii nii nii moom gisuma lu ku dégg di wax wax dëgg yàlla du bañ leen nag moo tax ma koy wax waaw mais dañuy analyser rek waaw fi mu toll nii bu mu dajaloo woon ñoom ñëpp du tax ñu am as du tax ñu am majorité à l'Assemblée nationale parce que foofu la foofu la situation politique actuelle du Sénégal bii toll. Mm-hmm. fa lañ toll. waaw du ne nag duñ am député. waaw mën na noo am ñaar ba ñett ba ñeent ba juróom bu <laughs> waaw lu ngeen di dee. Ah. soose nag doo ah, kii. benn député yombut de. doo dawal yërmande tuuti. benn député xam nga ñaata voix ngay am pour nga mën a nekk benn député benn député képp yombul benn moo tax ki ko am santal yàlla de boo amee ñaar ba ñett kay baax na it santal yàlla defaraat sa parti waaye nag majorité bi moom xam nañ fi mu féete ba pare daal wax dëgg yàlla yàlla nañ ca àgg ak jàmm nag bu ko defee. parce que président xam na ne fekk amut loolu wax dëgg yàlla du mën a liggéey lu bari waaw non du mën a def dara malheureusement waaw on verra. on verra bien Aliou Cissé waa Benno Bokk Yaakaar de jàpp nañ ni li yëpp caprice ko rek.